ouf de soulagement lañ mën a mën a wax fii ci liste Ila Ibrahima Ba bu Koungheul xam nga na nekk na list bu xam ne moom rek moo nekk fii ci département Koungheul élèves yi nekk ci département bi yëpp génnee ci CM yëpp fii la ñu mën a ñëw bu bu leen yàlla mayee BFEM ñu am ay jafe-jafe classe am ay jafe-jafe table banc ci loolu nag ki xam ne mooy Moussa sekk nekk opérateur économique ci ca Koungheul defati na mëninam comme ni mu ko defee woon daaw ci IEF ren jëlati na lu toll ak euh, cinquante table banc boo ko xayma ci xaalis mu nekk ci un million cinq cent defar ko may leen ko pour tout simplement doomu Koungheul yi xamante ne ñi nga nekk foofu ci lycée ba Koungheul ñu am fu ñu dugg loolu nag biñ ñëwee di ko réceptionné taloon nañ suñu micro ki xam ne mooy proviseur bi mu wax ci turu IA wax bi gërëm kii xam ne mooy Moussa Seck xam naa ñu bàyyi leen rek ngeen déglu ko waaw waaw maa ngi nuyu population Koungheul bi yëpp ah, di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal école bi ak élèves yi ak parents d'élèves yi ak képp koo xam ne jël sa doole di ko def ci élèves yi ñu ngi leen nuyu di leen sant waaw li ñu fi dajale tey nag mooy euh, dañu bindoon euh, comme école bi dafa amoon jafe-jafe table ñu bindoon benn waay bu dëkk Koungheul bu ñuy wax musa di doomu Koungheul dëkk ci Koungheul liggéey ci Koungheul Moussa Seck ñu bindoon ko wax ko ni ko nañu dimbali ci ay table yoo xam ne élève yi mën nañ ci toog élève yi ay élèves Koungheul lañ moom mu jël loolu def ko affaire boppam xam ni élève Koungheul ay doomam lañ euh, moo leen bokk jaboote mu génnee ci ñaqam ci xaalisam defaral nu juróom fukki table banc table banc yooyu nag moom lañ jot tey euh, di ko wane nii di ko nekk valeur un million cinq cent cinquante mooy fukki juróom fukki table banc nekk valeur u un million benn million ak genwaal benn million ak genwaal donc loolu lañ jot tey moo tax tey ñu ñëw di ko réceptionné tey di sant Moussa Seck vraiment di ko gërëm di ko sant bu baax ci ndimbal gi nga xam ni def na ko ma koy sant nag ci turu inspecteur d'académie di ko sant aussi ci turu ministre bi ndax lii nguur moo ko waroon def nguur nag loxoom jotewul ginnaaw parfois du mën a def lépp moo tax ku mel ni Moussa Seck dëkk ci Koungheul aussi def lii vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaax aussi ñeneen ñi aussi ñu jéema dimbali aussi lycée aussi parce que lycée bi ay doomu Koungheul ñoo fi nekk nañu ko jéem a dimbali ndax euh, lycée bi quand même mi ngi def ay résultats di liggéey élèves yaa ngi góorgóorlu nañ ci jàpp jéem leen a dimbali aussi vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal Moussa vraiment yàlla bàyyi ko fi vraiment di ko ñaanal euh, mu gudd fan ak wér vraiment yokk ay xewalam et di ñu continuer aussi di ñu soutenir ndax euh, benn du doy ngi ñaan yàlla mu continuer di ñu dimbali aussi waaw mu ngi noonu mbokk yi kooku moom moo nekkoon proviseur moom moo réceptionné taalement yi xam ne El Hadj Moussa nekk opérateur économique fii ci Koungheul maye ko fi mais ci kàddoom lañ ci dégg rek nee mu ngi tàllal loxo encore képp kuy doomu Koungheul ko xam ne mën nga jàppale lii si El Hadj nga def ko parce tim la fa nekk ci ay élèves bëri tur tim liñ ci seetlu mooy que ne ek lycée boo xam ne la résultat yi day baax saa su ne parce que xam nga ne ren ci bac bi bokk nañ ci lycée yi gën résultat ci Sénégal mais lycée ba xat na la fa nekk ci élèves bëri na classe yi doyul mais itam taabal banc yi doyul moo tax ñuy gërëm Moussa Seck bu baax di lancer appel doomu Koungheul yi xam ne ñu ngi si yëpp fu ñu ma nekk ci Sénégal pour jàpp ci lii xam ne tey lycée bi war na mën a jëm kanam ci ay taabal banc wala ci ay salle de classe jërë ngeen jëf